tey moom dañu fi ñëwoon parce que dañoo enrôlé woon ñetti ñaari junney élèves ak ñetti téeméer ci CMU bi léegi carte yooyu nag moo pare carte yooyu ñu ngi valable mai 2020 ba mai 2021 ñu ñëwoon nag di ko jox inspecteur d'académie bi ak inspecteur départemental bi ak parents d'élèves yi ak jàngalekat yi de manière officielle loolu fi mënoo fi doon suñuy tànk tey donc bu ngeen gisee loolu aussi ñu def ko pour dimbale élèves yi la dimbale également waajur yi parce que kon du ñëpp ñoo jot seen ginnaaw ndax nit bu fekkee ne dafa feebar war a dem fay docteur bi consultation jënd ticket jënd ay ordonnance dafay cher donc loolu buñ ko defee dina leen wàññil lu bari. wàññi bu nekk ci benn lay commencé donc dañoo commencé ci élèves semb 2 yi nga xam ne ci nawet bi ak feebar bi am fi muy Covid bi. ñi ngi jàngi lu ne mën na leen a dal ñaanaluñ leen ko ñu commencé ci ñoom waaye day loo xam ne danañ ko élargir danañ ko def ci daara yi def ko ci lycée yi def ko ci CM yi loolu dama ci profiter lancer appel d'offres parce que du loo xam ne kenn rek moo ko man foog ñëpp jàpp ci ñi nga xam ne doomu département yi la bi la te seen loxo jot seen gannaaw ñu dugal ci seen loxo pour ñu enrôler ñëpp élèves yëpp à cent pour cent boolewaale ci sax groupement yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi li may lancer ñëpp dañ ci dugal seen loxo doomu département bi fi nek nañ ci duggal seen loxo maire yi ak wa conseil départemental yi ñom ñep ñu duggal ci seen loxo ñi nga xamne aussi ñi ngi nek bitim rew sax nek doomu département bi ñu duggal ci seen loxo pour ñu enrôler ñep parce que santé mom kenn amuñ jëgëm ndax bo wérul do mëna tekki bay jëmele rew mi kanam donc il faut ñu jappalé ñep ba ñep ku ci feebar mëna faju ñaanuñ ko nak yalla mais nga nga nga fagaru mo gën nga faju donc boo yoree sa carte bu ne dara na la cuuc rek nga daal di daw doo fay ordonnance doo fay consultation bi doo fay lu bëri loolu ko dina la permettre vraiment doo am benn problème élèves yi aussi loolu bu ñu leen ko utalee dina tax ñu réussir seen njàng ba mën a yore réew mi ëllëg yore département bi. dañu dañu ñëw fii tey ci euh, fii ci Koungheul pour euh, fekkee euh, cérémonie bu am solo boo xamante ne ni inspecteur éducation et formation bu Koungheul def ko initier. lëkkaloo ci ak madame la directrice générale Socé Socé job jonn jëm ci jàppale xale yi ci enrôler leen ci li ñuy wax couverture maladie universelle muy ñaari junni ak ñetti téeméeru xale yoo xamante ni ñu ngi def CM2 nekk classe CM2 madame la directrice générale jël leen jël leen en charge affilier leen ci couverture médicale universelle pour xam ni simplement xale bi lu lu ay lu ay jàngale lu ay jàngaletam jàngale jàngale jàngalekatam xarañ xarañ xarañ lu parents yi également am am am Pastef inspecteurs yi lu ñu am également Pastef bu fekkee ni xale bi nekkul wérul nekkul ci jàmm résultat yi du du doon ay résultats yoo xamante ni résultats yu ñoom la ñu ko ciy sant di ko ci gërëm mais également profiter ci pour wax ni li nga xam ne def nañ ko na doon loo xamante ne nii lu ñuy wéyal la maa xam loo xamante ne ni dañ koy inscrire dans la durée parce que carte bi at lay durée xale bi buñ ko tàmm buñ ko xale beeg parent bi buñ ko tàmmalee lii tey ci at yoon la ñu ñu gunge ko en fait ba keroog sax muy jéexal parcours scolaire am mais non seulement dañ koy dañ ko war a pérenniser mais dañ ko war a également élargir ci bépp xale boo xamante ne ni nekk nga ci Koungheul mais ci bépp xale rek simplement boo xamante ne ni nekk nga effectivement ci région de Kaffrine ñu ñu ciy ñu ciy ñu ko ciy sant di ko gërëm mais di lancer appel également képp koo xamante ni nii bonne volonté nga mais képp koo xamante ni également président conseil départemental nga wala maire nga n'est-ce pas pour que nga nga nga yokk simplement li nga doon def jëmale ko simplement ci école bi li ci des dañoo tàmbaliwaat école bi n'est-ce pas euh, ci contexte boo xamante ni contexte bu particulier la feebar bi nekk fi mu am ay effort yu bëri yoo xamante ni def nañ ko pour mën a mais ñuy ñaan ñuy ñaan simplement rek euh, ñuy ñaan simplement rek parents yi ak élèves yi ak jàngalekat yi ñu baña bayé ko parce que fièvre bi mu ngi fi nañu gëna jël sunuy matukay mais nañu surtout également fexé ba xalé yi nga xamni ni dañuy dañuy gunge deug le sen parents yi ci tol yi ñu parents yi dawal compréhension pour dimbali len rek dimbali ñu dimbali également sen bop dimbali xalé yi ba liggéey bi n'est-ce pas ñu gëna prioriser école bi ba dem ci examen yi ci jàmm yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatulah.